di féliciter bu baax son excellence le président de la république Macky Sall kii de 2012 à 2022 waa département de Mbacké ñu ngi doon solliciter audience ci moom yàlla dogal mu may ñu ko jeudi passé 6 yàlla dogal ñu dem waxtaan ak moom mu wane wanewaat engagement am ci dëkk bi wanewaat engagement am ci Sénégal taxawaay bi mu bëgg a taxaw ci jigéen ñi ci ndaw ñi ak ci mag ñi loolu yëpp it bi mu ko waxee ba pare mu wax ni dama bëgg. ñu créer unité boo xam ne mooy mën a tax fii ñu ñu nëq ci ndox mi mënaguñ cee génn ba nëga ni mënaguñoo génn nag ci naq bi ndax tappale yi war yi chemin yi ak jaayante doole yi ci biir zone yi ak yi ci biir dëkk bi ay nit suñu àndee bokk luñ mënta seddoo kenn ku ci nekk day jox moromam waayam loolu mooy àndu nawle mais saa bu liggéey jotee ñu woo ñëpp ni leen kaay leen ñu ñaq su jariñu ñotee ñu làqatu ci ab pantre décider la ñuy décider dama loolu dafi war a jeex sëriñ bi ndax gagnons ensemble la président Macky Sall waxoon gouvernons ensemble au niveau central lépp lu président Macky Sall di def dana woo Moustapha Niass dana woo Modou Diagne Fada dana woo Cheikh Sadibou Diop dana woo FNP comme ni ma ko limee ñëpp mais lan mooy nday nag bu dara desut lu dul wàcc fii ci base bi ñuy def seen i lobby seen i yu kenn xamut pour rey Macky Sall damaa jàpp ni ñoom ñooy adversaire u Sall les adversaires de Macky Sall c'est l'APR son propre parti c'est l'APR son propre parti alliés yi tey lañ gën a engagé wu ci wetu Macky Sall parce que suñuy leader loolu la ñu sant tey la ñu gën a taxaw ci wetu Macky Sall duñ ci dellu ginnaaw comme duñ ci dellu ginnaaw nag œil pour œil dent pour dent kenn dootu ko fi def sëriñ bi nag li nga wax ñu ngi koy rafetlu wool camp yëpp wool clan yëpp nañu bokk toog waxtaan suñu ñimee nañ tëju ci biirum néeg waxante dëgg poot pootum biir mais lobby yi tappale yi war yi yooyu na fi jeex takk président ñun de bépp jigéen boo xam ne man mat Seck xam naa ko mi ngi taxaw pour bëgg a liggéeyal APR mais amuñu bunt président amuñu bunt pour liggéeyal parti bi ndax soon yi dëgg amu ci soon yi lu wér amu ci soon yi. amul lenn loo xamante ni ab liggéeykat danga fa ñu nag président fi mu nekk Oulimata Seck ak bépp jigéen bokk APR dañoo taxaw pour nga war ñu bunt bu ñuy jaar ba liggéeyal parti bi xaw naan ñun. ñi nga xamante ni ay branlon moo leen di indi foofu ci palais bi ñu doonoo taxaw pour dëggal suñu bopp ak bépp jigéen bu bokk APR dama laa waxaale ñu nga wan ñu bunt boo xamante ni wala nga boole ñoo koo xam ne eggal suñuy liggéeyal nax yi daal sonn nañ ci pertement ñu ngi ciy ruus ca pertement itam li koy waral moo di naxante bi dañoo defante wu dëgg. ñun bokkuñu ci zone ndax gis nga suñu bokkee ci zone yi dañuy wax rek waaye comme ay ay ay ay ay Samba. àllar la ñuy teg su ngeen demee ci zone yi itam dañ leen wax e yéen bokk leen fi wala nanga wala néew do loolu tax bokkuñu ci zone président de la république nag su bëggee waa Kër Lat Diop yi takku taxaw continuer battre campagne pour président la république gagner département bi ci élection yii dina ko jëf te ñun nag président Lat Diop nee nañu suñ leen investiree suñ leen investirul président Macky Sall moo soxla ndax nañu moytu cohabitation kon nañu moytu cohabitation ñu koy wax population yi population yi yéen responsable politiciens yi nga xam ne ñooy topp rajo bi di talalali du ñu ay politiciens ils ne sont que des des politiques politiciennes wala politicar kër gi loolu mooy problème bi dafa am un politicien am un politicar am ki nga xam ne c'est un politique politicienne le celui qui fait la politique politicienne ak politicar yi seen bopp du réew mi les hommes politiques sont ñi nga xam ne ñoom dañoo topp président di ko wax dëgg liggéeyal ko pour jàmmi askan wi mais non pour seen poste. kontaan bu baax. ci daje bi ñu def tey mu doon daje boo xam ne gannaaw bi ñu jógee ci audience bi nga xam ne moom la ñu président mayoon ñu yàggoon ko sàkku waaye ñu jëlee ci ay résultats yu bari bi ci jiitu mu am ay kàddu yu bari yu mu yëkkati bàyyi ko ak ñun ñu nit ñu am ay kàddu yu ñu fa bàyyi ñu def ci ay jàngat yu rëy a rëy rëy ndax eh, li ni parti bi di doxee fii ci dëkk bi ak élection yi nga xam ne yàgg nañ cee dem waaye mënuñoo fexe ba am fi ndam loolu nag keroog dafa feeñaat foofee ñu jege woon ca pale ba ndax li may wax waxtu wu nekk wax naa ko fa dama koy waxaat li feeg ñi ngi nekk ci ay lub li feeg ñi ngi nekk ci jayante li feeg ñi ngi nekk ci jëwante li feeg ñi ngi nekk ci warante ca ànd ñu mànkoo nekk benn du yàgg-yàgg ban ma sa da cee am ñoo xam ne seen i wax ak seen i doxaleen dara rafetu ci ca mu waroon rafet lool am ci ñoo xam ne nii tamit lu ci bëree bëri dañuy ndax président ca président bu ne dellu leen ci zone yi liggéey ci zone yooyu ba léegi si may wax ak yow bari ay responsable yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi ak ay alliés gisuñu ci seen bopp bokkuñu ca kon ñooñu bu ñuy liggéey fan la ñuy teg seen tànk kon ñooñu seen taxawaay fan lay féete man li nga xam ne moo taxoon ma woote tey mooy ñi nga xam ne amuñu lu leen neex ci son yooyee ñi nga xam ne bokkuñu ci son yooyee ñi nga xam ne tamit ay allié leen kenn boole leen ci son yi kenn boole leen ci liggéeyu dëkk bi ma jàpp ne ki nga xam ne mooy président de la république bu tey bu taxawee am ay allié nekk ak ñoom pendant ay at tàggaliwu ci kenn kon kooku ab royukaay nga kon ñun bu nekkee ci dëkk bii di ko jàppale lay yoon mooy ñu bokk kook allié yëpp ñu bokk kook ñuy jàppale président ñëpp waaye di ko def ñetti nit ak ñaari nit loolu leen bëgg mu jeex ci dëkk bi ndax politique du daayira politique dañ koy waxtaanee politique dañ koy diisoo ndax ki nga xam ne mooy suñ njiit tey lépp lu muy def allié yam koy àndal ak ñam ko àndal ñoom lay toog waxtaan ndax tey bu doon doon loolu tey bu ñuy recevoir ci pale ba danaan bu ngeen demee def leen lii def leen ni ndax moo ñu ëpp ay information foofu waaye dane nu ngeen ko gisee nan ngeen di def ba mën a gañ loolu nag ko la ko wax doon sa kilifa boo dikkee ci dëkk bi war ngeen a diisoo war ngeen a dajaloo am na ci ñu ciy daw nag di organiser ay son di mbëlëf mbëlëfi ndax la ci lañ ci jublu mooy li président wax ne danaa leen jàppale ci son yi jéem leen a def le tout di suur gars yi ñëw bëgg a muur mbir mi këpp ci dara ci kaw ca la ñuy wax lépp ak la def lépp dara du ci dëkk danoo war ñëw ci dëkk bi ñun def réunion ci suñ biir xool ñi nga xam ne tey lii ma woote gis ñoo xam ne am na lu leen naqari am na ci ñoo xam ne tey ñi ngi jël jëm ci yeneen i coalition wala ñi ngi war a ñu démissionné am ci ñoo xam ne war a noonu ñibbi si ci seen biir kër kii ñibbiseegun ci seen biir kër ñu waxtaan ak ñoom ban ci seen biir kër ñenn ñi ñëw continuer seen liggéey ci coalition bi bi ñu ànd loolu moo war a njëkk am loolu nag lan def tey jii bëgg képp koo xam ne nekk nga ci coalition képp ci coalition bi ci nga bokk waaye allié nga ci gisoo ci sa bopp nga ñëw ñu joxante loxo jàppoo képp koo xam ne bokkoo ci son ci bokk ab leader politique nga ab responsable nga ñëw ñu jàppaloo joxante suñu loxo képp koo xam ne nii bokk nga ci son yi ci gisoo ci sa bopp nga ñëw ñu joxante loxo bu boobaa la cay tegee ñeneen ñi nga xam ne ay responsable yu mag lan comme man danaa leen woo ab réunion comme na ma ko defoon keroog ba ni si ba ni taxawal son yi bi ñu taxawal Sony ci sama kër gii lañ ko taxawalee ma am ci digalu président ñëw gisi Abdoulaye gaynde faat ba gis mboolem responsable yi ñu dajale sama kër gi ba keroog guddi gi nga xam ne moom la ñuy taxawal son yi man Abdoulaye Ka Abdoulaye gaynde defaat ma maam Xari Mbàkke saa Sadaga ah ñun ñëpp ñoo toog fii ci kër gi réunion tëj na ñun ay saas la di nekk ñu taxawal tënk son yi kon son yooyu bu ñu demee ba président ne nañ nañ ci sukkandiku ngir liggéey nan jéem a xoolaat zone yooyu nun koy yaatalee nan jéem a xool zone yooyu nan lañ koy organiser ca mu bañ a doon loo xam ne ay nit ñooy complot nekk comme cin comme ñetti was luñ ci doxal du am luñ ci jëfu am lu ñëw tege ci seen loxo bu ëllëgee si bu bu buñ gañewut ñun ñëpp ñooy responsable ba ci yéen ñi toog fii ne boolewuñu lañ ci kon ëllëg ñuy egg foofu nag nan toog waxante dëgg man appel boobu laa def appel boobu ma def nag unité lay doon parce que li fekk nekkuñu benn duñ mën a gañe élection ca nag gàcce war nañ koo am bu gàcc dee am ndax dëkk yëpp ngi gañe ci gañewuñ nit ñi nag ñi ngi laaj waaye bala ngay laaj nanga nga fexe ba gañe loolu président wax na ko ca élection yi ñu jëm nan xam ne élection yu yéeme la ndax li tax mooy bu président amee majorité assemblée nationale dana mën a ay sànceem dana mën a taxawal gouvernement am ca loolu buñ ci jàpput ànd nekk benn gëm naa ni leneen mooy am ca bu leneen bu amee ñu ñëpp ñooy ñàkkandoo kon loolu moo waral appel unité bi waaye moo waral ñi ci gisul seen bopp ca ñu dajale leen may wax nag sama mbokk yi ma bokkal dëkk bi di ay responsable yu mag fii kenn yirifu fi kenn kenn jiitu fi kenn ñun ñëpp président dañoo dajale na leen dem leen ci zone yi ngeen ànd liggéey président dañoo dajale na dem leen ci zone yi ngeen waxtaan kon li ñu war ci guddi yi ñu toll mooy dajaloo waxtaan mbir mi kenn yilifu kenn yuru yii am nag ci audience bi yii bu continuer di am ay nit ñu lay tàcc ay nit ñu lay yuuxaloo ay yu mel noonu loolu taxutoon ñuy dem ci ab audience la taxoon ñuy dem ci audience mooy wax doléance askan yi la taxoon ñuy dem ci ay audience mooy wax doléance su dëkk bi sancaan yi sonn nan ni responsable yi sonn nan kenn gisu sa bopp président nag pare na pour jàppale kon comme que président pare na pour jàppale nan toog ci taabal waxante dëgg waaye dem gee ñu dem président politique see la moo ñu gën a xam fop la xew ci saal ba moo ñu gën a xam fop ne am na ñoo xam ne dañoo mobiliser ay nit ngir ñu koy tàccu am na ci ñoo xam ne mobiliser ñu ay nit dañoo ñëw kese waaye bu leen yooxoo benn baat xam na ne ñu mobiliser ay nit ñoo leen yooxuloo président moo ñu gën a xam politique ndax ba mu ci jaaree di def yàgg na lool kon lu ñu def ci politique xam na ko nan bàyyi naxante yi cay waxante dëgg nan ànd joxante loxo ca liggéey loolu mooy tax ñu mën a gagné élection yi wax na ko it mu jëm ci ñu préparé noonu yi nga xam ne ñoom lañ jàkkaarloo nga xam ne ñoom seen gëm-gëm yëpp mooy saaga nit ñi wax nit ñi lu bon nekk fas yéene yàq li nga xam ne tamit moom la fi président liggéey loolu dañ ko war a làgg jël ay tur di ko jëbëri si ci dëkk yu mel tubaa ak feneen di wax di tudd ay ñaari tur ca la ñuy wax dara du ci dëgg président bu toogee ne li feeg maa ngi fi nekk du am fa la wax mën a yem bu ñëwee toogaat nekk président ne li maa ngi fi nekk du am wax fa la a yem nan bàyyi naxante yi liy dëgg mooy président jël na ay engagement ñu nit nan ko jàppale ci liggéey bi responsable yi nekk ci dëkk bi fas yéene joxante loxo waaye ñu bëree bëri ñu ngi mer di wax ñu leen di jabuli si ca wax jani wax ca fekk na seen xol a jeex kese ndax gaa yi nii ñu jaar ci seen kaw di jàll di wan na ñoo fi nekkal président di liggéeyal président man Modou Bara Dolly du ma ànd ci ay combine man Modou Bara Dolly du ma ànd ci ay naxante parce que dëgg rek laa fiy àndal kon joxante na ma ak yéen loxo ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci lool nan dem joxante ñoom loxo génnee leen ci lëndëm googu ñu nekk parce que ci ak lëndëm la nekk ak naxante fas yéene nag ànd liggéey pour président mën a am dam lii moo waraloon woote bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mun fi jege nan joxante loxo fas yéene lii ñuy def nag ñu fas yéene ko avancé gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa